salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah ça va. naa ah, alhamdulilah. alhamdulilah naka ah, alhamdulilah. yaa ngi jarul may toog aw ma toogal. damay dem damay dem. toogal xanaa waaw maa ngi jégalu boobu gis gisoo gisuma la. waaw waaw. Mm-hmm. ñoo sant alhamdulilah damay dem jarul toog eh, yow yaa fi indi donc bi ngay ñëw sama place dafa am loo ma ne ma deux jours dinaa la jox ba mu am kóolute ci yow xam ne muskalaf nga kilifa nga yëkkati samay tisi jox la oh, bi ci njëkk woowoo ma téléphone mm. nga waroon a ñëw ñëwoo woote woo ok sa téléphone planqué na planqué wul am nga doom am nga jabar nga jël seen téléphone woo ma mm. ne ma lii moom ma téye ma xam léegi nag xaalis bi laa jël si comme indiwoo ko mën na am gàllankoor la jox ma ko ma dem maa ngi jégalu Ndiaye Diop maa ngi jégalu bu baax euh, yow sama xarit nga te yàgg nañu dëgg yàlla rek yow rek yaa may jox te maa ngi jégalu ndax ba ma lay wax bis boobu dama yaakaaroon ni euh, su ma demee rek dinañ ma jox xaalis bi ma ma ma ñëw indil la waaye man ku ne xam ne ni bëggoo ma ko woon noonu sama diggante ak ndax Ndiaye Diop yow danoo yàgg man ak yow ak Abdou Ndiaye Bawal euh, Lambaay danoo yàgg xam nga laa bëgg nga may ñu niis kiis rek fii ak suba. maanaam xam nga duma fi nekk di discuter ak yow parce que jour yi ma waxoon dafa passé man mënuma concevoir di leb samay tisi ci dama ko am fu ma ko yaakaaroon xam naa samay cent cinquante mille laa soxla waaw xam naa loolu mais li ma la expliqué foog nga comprendre ma man it xam nga sama man xam nga ni musuma def lii daa am ndog ndog bu bu nekk sama digg si diggante bi waaye préparé woon naa bu xaalis bi ñëwee rek man du ma xaar sax nga may woo da ma ñëw rek fekk la pikin télé bi ma ma ma ma fay la jox xam nga ne du ma fi génn te joxoma xaalis waaye déet waaye Ndiaye Diop billaahi du fi génn te joxoma ko sama xaalis laa bëgg nga jox ma ko ma génn ci njekk wala liy metti ci kaw ci yow lay waaw léegi man ak yow danoo yàgg liy metti ak liy seet weesu nañu foofu dégg nga yow sama doom nga Ndiaye te kilifa nga Ndiaye da ngay que mën nga maa jox sama xaalis da ngay jàpp xam nga yow yëf yi xool naa ba xool waaye nekkatul réewande da nga dox sama xaalis. ah sama xaalis. Ndiaye sama xaalis. Ndiaye police ma sama xaalis. Ndiaye sama xaalis. Ndiaye Ndiaye dafa naan xam nga boo sama sama xaalis waa déglu ma. sama xaalis waa déglu ma bu ma fekk sama kër di ma toroxal. bu ma fekk sama kër di ma toroxal Ndiaye ba nga ñëwee dama ne la toogal di dal ak yow mais boobu bu ma def nii. bu ma def nii sama xaalis laa da ngay def ndànk ma jox la sa xaalis da ngay benn ndànk yow ñaata laa ma ndànk doo ma doo ma yoreel di ma indil naqari deret de ah! doo ma yoreel di ma indi naqari deret danga may rey dama lay rey dama lay rey sama xaalis di nga ma ko jox ah, ah, rey ma xama la laa lay suba laa la may cinq heures zéro minute maa ngi sa kër soo indiwul sama xaalis sinon maa ngi yow loo bëgg dinañ ci dem fan la bay ah, ma gade ah danga may dem di nga man la mbe gatal bi laa waaw gatal yow man yow Ndiaye Diop boo xam jëbal laa wax yow yow ñaata ñaata laa la yore cent cinquante mille laa la yore cent man man man man man man man man man man man sept cent sept sept sept cent sept cent mille lan lan lan matériel doomi endo doomi xaj endo endo su ma ko jàppee laay silma lay doon salaamaaleykum. ñu ngi sant. bàyyi sama loxo nan dem fee ñu waxtaan dew ma dimbali ma nan dem fee ñu waxtaan soxna si dafee nekk waaw eh, waaw wuyu ma soxna si yaayam nekk dew ma bu ma tooñ de doo ma tooñ ñaari yoon waaw waaw léegi tooñu ma la damaa bëgg buñu demee ñu réglé ko nan dem fii laa koy réglé sa digg kër waaw diit waay yow lan ngay duul yow maalaw yow ba nga xamee ne munoo fay lan nga may lebloowee noppiwu ma damay gën a nodd pareegu ma de yow de isa xam nga ne bal dama ca maas yaa ko fay gere faasam waaw xam naa loolu kaay ñu dem bàyyi sama loxo dew ma waxuma nànk dew ma fii laa lay waxee li ma la bëgg a wax yow ba nga xamee ne yow danga may lebloo li ma lebloo lépp lebloo ma ay jasneer lebloo ma bagage yu jàmbur ay gere ma dem ba maas deng ci bal de lépp ko gere faas nga ay duur la li may dégg sama kër gi lan la hmm? lan moo xew ah, amoon lu ma ko dig rek si tëlu si bi xam nga. dimbali yow nga lépp loo ma ay yére. Hmm. lépp loo ma dàll lépp loo ma greffage. teg ci li gën a neex lépp loo luyoo loo ma appartement meublé. ah loolu loolu da ko see dolli de. amu ci moom ko see dolli. man dama am dara eh, noppi. dalaa lebloo fayu ko. fayu jël loolu appartement meublé. kii mën na yokk léegi na xam nga lu ma bëgg bu doon ko réglé sama biir kër ci biti. amul benn problème. de toute façon eh, eh, eh. moom mooy doxante kii moo mën a yokk ay waay kii moo mën a yokk waaye yéen xale yi léegi danoo màgg. laajuma la kañ lay noppi. pardon. yaa ñàkk jom yaa yées yaa doo ci gileem namp ci mbaam yaa manqué ba mel ni ñett yi fukk di séddoo tamatu leen. manqué malo nga jega sang naa la boot naa la neng nengal naa la dangaa bañ ba nga am sa biberon spécial bu ma lay jox nga diko nam eh mané nga nopi eh wax ji moy doy de yow li nga ma dig lépp ci tabaski ji nga wax ma dal di may expliquer sa situation ma tok gérer ko di muñ di xal yalla ndekete bobu ya ngay xaabaablu di tagat eh mané nee naa la liy nelaw ci man bis boo ko yeewee barke leeru alxuraan dinaa la dugal ci gën dinaa la dëbb ba nga nooy ah, ah. ma moolewaat la ah, defaat coow li ma bëgg dafa nga ko lu sama xoolama tooñ rek ñaatoon fa dem kay moom moom man moom moo yokk ay immeuble yaa ko jël kan jël man dinaa jël sama moromu doom yaa koy fay fay man dama koo dal man maa ngi doon lijjanti mbirum tamit si bi fii wax yëpp amul daa bëgg fu mu toll dafa am ñoo xam dañuy ñëw di jaxas sa kër ndax sama digganteeg yow ni nga ma yore ñu yaakaar yow yow yow dama dama dama dama la dama na wax ji moo doy laa la wax maanaam eh yow dooma yab de nekk sama borom kër nag tax nga yab ma ne naa la lii nalaw ci man bu ko ye gajaga nanga ma moytu danga matak takk ma sagal la yir la eh di la top ba say mbok ku la gis dajale ñi gor gu la gis ñe la nga danga ma fi ñuk nek fu nak nag def kat xala yu salta yu forox yi nga may jënd yow. eh wax ji moy doy. taxul ma wax la c'est que xam nga. Eh, daam lu ma du maanaam eh, duul laa wax yow lan la. ah, ah man nga lan duul. boo xamee ma saaga sa ndey da ngay déglu baax li ma la wax mënumaa nekk ñu joobal la ba pare nga bëgg jël sama mën di ko seeyal julleewu ma Ndakaaru li nga ma waxoon defoo ci dara nee nga ma jour tel toog naa di la xaar ba tey tey nag mënatuma xaar dara. waaw xaalis ma waroon récupérer moo tardé may ma tuuti rek fii ak fii ak fii ak guddi dinaa la envoyé. léegi sa xaalis tardé nga bëgg maa tardé. loolu xamal duma ko nangu dama lay wax rek bala ma jënd kër gi di nga ma jox sama xaaliss wala nga jox ma yëre bi man yóbbu ko man man yoruma xaalis yoroo xaalis loolu wax la xaalis xaal lima yaakar la laa dima lima rek man xamone yow yag nga ma ñëwal bo jottul li nga yaakar legi man nga ta sama yaakar billahi muñul ma rek fi yeguddi bu ñëwé rek dama la koy envoyer dimbali mi ngi yalla bi fii guddi mën naa toog fii lu mu guddi guddi guddi man na ko xaar ah te jo jo jëg dem rek kon mooy loolu alors ay mooy loolu taxuma wax guddi nga wax naa toog ba guddi waaw xanaa amoo ay ñaw yooyu yooy egg la ñaw tëbëg si yow it nag bala ngaa jekk sama julli ji laay fomm taxaw ci buntu jàkka ji yëri boo sol ma futti ndayam